Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé na def attention na def attention doo am xale bu rafet takku ko jël ko teg ko fépp ñëpp génn nga gis ay ay kan laa gis daal moo dal lan moo daal l'autre euh, sama waay comment il Omoro lan moo ko nag fatal sow fatal fatt ngeen ñu fatt ngeen ñu ñu ngi leen di ñaanal nag heure heure mariage waaye dama xam rek ne milieu bi dafa garaaw nañu dem gaay nañu dem genre yu mel nii bu ko seetaan affaire u ñàkk fayda yi ngeen seetaan yëpp du ma ko seetaan ay ngaaka blende dafa takk xale bi xaw ma lan fatel soow xaw ma ñu fott nit ñi di leen divertir yooyu yëpp bu njëkk ba dama ci daan def ay vidéo di wax showbiz mais talatuma ko talatuma ko parce que l'heure est grave gars fi ñu nekk ak Sénégal mu ngi waaj a yàqu nga nekk di ma wax ay ngaaka bi leen di ma wax ay ñoom ñoo ko tey am Poté divorcé na ah euh, l'autre euh, euh, Mbathio Ndiaye divorcé na tey ñu yow booy bi sonnal ñu foo turne fatal sow fatal sow fatal fatal mi ngi ñuy fat fatal sow mi ngi ñuy fat mook ngaaka bi leen seen mariage boobu bu yow ñu def très attention làmmiñ baaxul yow doo takk sa jabar yóbbu ko fenn nga nekk ak moom yéen ñaar rek après nga annoncé ne takk naa ko mais avant mariage yóbbu nañu nga euh, waru gar xale yi nga Je ne dañoo teel a am la grosse tête ay Fatal Sow xale yi nga Je ne dañoo am grosse tête nga jël leen nga leen pang ci internet bi. booy Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé na def attention Je def attention pas am de bu rafet takku ko jël ko teg ko fépp ñëpp génn nga gis ay ay. kan laa gis mu photo ak euh, jëkkëru Viviane bi njëkk bi mu tudd euh, euh, kii Dieng Moustapha Dieng gis naa ko mu photo ak benn célébrité ñooñu ñëpp ñu ngi woon ci mariage bi kon da leen ne mariage boobu célébrité yëpp a fa reporter yi rappeur nga jël sa jabar xale bu ndaw ah wane photo mariage naan yóbbu nañu ah naan seen Abdou Mbacke xaw ma ne seen Karim Mbacke noo takk sëy bi di wax lam lam baaxul Ngaaka Blindé fais très attention ñu naan may na ko lii may na ko laa xaw ma 3 millions la ko ñu xaw ma lu ne ñu ciy dugg Ngaaka Blindé yaa ngi def yëfu Ngaaka yaa ngi def yëfu Ngaaka yow kañ nga fi nekk yow Wally Seck sax ba muy takk jabaram defu ko Youssou Ndour ba muy takk jabaram defu ko showbiz boo ci nekkee ah il faut nga def attention kenn waxula la bul wane sa jabar mais salaamaaleykum maaleykum salaam nga takk xale bi rek mel ne yow ah nga takk xale bi rek mel ne mooy dégg man qualité may soxla ci jigéen yëpp mu ngi ci xale nga de ngaa ko beleen xale nga defal attention showbiz dafa bëri ay caïman dafa bëri ay caïman sa jabar boo ko jëlee ne ko fàng nii commencement takk goo dafa goo dara ci moom ne ko fàng gars yi dañ koy nangu sa loxo de parce que sol yi ay caïman la dañ koy nangu sa loxo et puis xarit jigéen ñi ñu ànd ñu mu am ah ah wóor ko man bis bi dina am sama jabar di jaxasoog euh, euh, euh, rappeurs yi di jaxasoog reporters yi yeneen musiciens yi ñu ñu ñu xamante sama jabar maa ngi dégg booy xëca xaw ma naan wéy sama xarit la Fatal sama xarit la xaw ma lan ñu commencé di wax ku nekk di wax boo amee sa jabar nga nekk célébrité te yow nekkul boo fi célébrité bu ñu wax nga xam leen yaa ngi doog commencé booy dañuy dem tuuti rek commencé am tuuti million rek jël seen bopp teg ko foo xam ne mooy loolu discrétion dafa baax làmmiñ même bu dara sax cek cek baaxul làmmiñ baaxul xale bu ndaw nga Ngaaka Blindé amagul xam naa ne amagul 30 ans ah am sa jabar jël ko jël ko affiché ko fii foo tourné Fatel man dama xale bi xaw ma ko Fatel Sow Fatel Sow Fatel ngeen fatt ngeen ñu ngi leen di ñaanal nag heure heure mariage wax dëgg dëgg waaye damaa xam rek ne milieu bi dafa garaaw nañu dem gaay nañu dem genre yu mel nii genre yu mel nii en général même pas un an lu muy yàgg-yàgg un an deux ans nga dégg ñu ne la problème moo dal moo dal euh, euh, euh, nu mu tuddati Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye douze millions douze millions douze millions fan la mujj Mbacke Ndiaye Mbacke Ndiaye fan la mujj ñu naan jëkkër jee ko dóor ak dugg na fii génn fii daf ko dóor après dem di baaloog bëggatul defalu ko dara jëkkër ji moo ko doon lekk ak 300000 rek la ko doon jox appartement xaw ma 800000 la doon fay xaw ma jëkkër ji 300000 la ko doon di wax ku ne di wax Amina Poté moom it dafi nekkoon sama jëkkër lii ah. sama jëkkër laa pati ji patita léegi nga toog déggaat Amina pote jëkkër ji fase na ko mu ne li tax jëkkër di fase ko ci li ma lii musugul gis jëkkër kon jëkkër jotugul sax jotul sax consommé mariage jotul sax consommé gis nga milieu bi milieu boobu garaaw ñii wéruñu barki rasulaay du ñu ay nit de ay Amina Poté yi ay Mbathio Ndiaye du ñu ay nit dafa mel ne Macky Sall rek dafa mel ne Macky Sall mel ne ay euh, euh, euh, Aliou Sall Marème Faye yéen da nga yaakaar ne dañoo ay nit lañu ñu nit gis nga boo demee ba siw commencé am xaalis ñu lay tudd partout boo ko mënul gere dangay jël sa bopp teg foo xam ne boo amee jëkkër sax doo xam sa valeur jëkkër da ngay am sa jëkkër xeeb ko daal di fase mais xool leen li mu leen wax ci milieu bi nga sa jëkkër xeeb ko fase sutura dafa baax xale yi génération TikTok yii brimel il faut nga def si très dañuy dañ lay kii de dañ lay détourné de génération TikTok yi am nit ñoo xam ne tur rek la ñuy ut barke Rasuul laay tur ñëw sëy ak yow un an ba am tur ñëpp xam leen beneen milliardaire ñëw nangu am na gaa yoo xam ne brimel daf ci am gaa yoo xam ne xam la moo leen neex billahi wallahi taala dafa am gaa yoo xam ne xam la moo leen neex e xam leen ne mi ngi takk na Fatel Sow bu ñëpp di wax Fatel Sow Fatel Sow Fatel Sow daf ci am gaa yoo xam ne dañu am xaalis da leen di jaral lu tas sëyu ngaka pour pour lan pour nangou xalé bi ci mom bu ñu xasse nangou xalé bi ci mom def ak mom un quelques mois wala ki door ko ci xéer lan mo dal lan mo dal l'autre euh, sama waay comment il s'appelle Omoro lan moko dal lan mo dal Omoro yow da nga dugg ci Gambien bi wax fatali ma turam man mako ko interviewé sax fàttali na ma turam xamna ni dina ma ray yow yang ci dugg ah yaa ngi dugg ci ndaw si Gambien bi gars yi fàttali leen ma ci turam man maa ngi fàttali turam te man maa ko interviewé man la defal interview ñu lëmbee réew mi Omaro dafa waroon discret mais génne naa oto oto bu rose bi mu jël ko teg ko fii ah Omaro joxe na 3 millions Omaro Ayo Balde mersi merci Yamé omo ah, Omaro Ayo Balde wey 3 millions oto bi oto bu rose bi. nekkatu oto bi amul sax moteur da kaa peinture rek teg ko foofu aw baal di ko suturaal di ko suturaal waaye bañ demee ba ci biir mariage boo xam ne ci internet lañ ko takkee mais ci internet lay fa lay lay lañ koy lañ koy lay tase parce que ayoo dafa mu ne Omaro vraiment satisfaire ko parce que Omaro déjà demul seet ko fekk ko fi mu nekk Suède Omaro day yéex a tëdd si parce que ci télévision la nekk et cetera et cetera. mais dama bëgg wax na cet ñooñu même mënul dara rek cet rek cet rek mënoon na mënoon na la dal. gis nga célébrité boo amee sa jabar takkal au moins ci suuf dem ak moom un an six mois sax ba koo consommé mariage bi sax wala sax au moins nga am loo dund ak moom ba xam jikkoom sax après ngay doog a wane mais boo ko deful gars yi ñoo yàq jigéen bi mën na la bëgg sax mais xale yi. bu keneen jóge fële am xaalis yow Omaro 3 millions la la may bu keneen ñëwee may sa sa jabar 3 millions moom it bu bëggee xaalis mais dalay lay dóor ci roche waxuma ne nag Ayo Baldé looloo ko dal ak mais dama la bëgg expliquer rek ne li tax ma joxe exemple boobu parce que Ayo Ayo moom vraiment man ni ma expliquer ak moom wax dëgg bëggoon na Omaro bëggoon na sëy moom mais dama la bëgg wax ne làmmin baaxul moo tax nag booy bi booy bi nañu dem booy nga leen nañu dem na bàyyi li muy def. na bàyyi lu muy def na jël jabaram mu dem mu làq toog moom jabaram sëyal ko mosu leen fi gis Youssou Ndour jël jabaram di ko affiché Wally Seck gis nga ko soxna ay dara doo ko gis fenn Pape Diouf gis nga ko ah euh, euh, doo gis jabaram doo ko gis muy tamambalu fenn est-ce que yéen may dégg bu la neexee nga jël sa jabar de temps en temps nga wane ko comme Wally Seck ni muy def mais jël sa jabar daal di ko affiché partout ba pare bañ gars yi doxantu xaritam yu jigéen ñi nag ñooñu ñoo gën a dangereuse Fatel Sow xaritam jigéen ñi ñooy gën a dangereuse boo amee xarit bu jigéen bu mel ne Rangou par exemple wala nga <laughs> bëgguma yàq dara Rangou <laughs> génération TikTok ah des fois jalousie day am wala des fois ñu ne la kaay ñu dem Dubaï eh wax wax mu bàyyi la waaye ñu dem Dubaï en tout cas ngaaka na def très attention mi ngi def yëfu ngaaka laa la wax ngaaka mi ngi def yëfu ngaaka. mais xale la na ñu dem rek gis nga exemple yi leen fi cité yëpp gis nga exemple yi mu leen fi cité cité naa leen Amina Poté cité naa leen euh, euh, euh, Mbathio Ndiaye cité naa leen am na sax ku ma fàtte kii gise Pendo Pendo gisee gis ngeen ko moom tamit parce que loo xas a publicité di wax sama jëkkër li sama jëkkër la boo tasee day siw alors que buñ ko buñ ko defoon nab nabb nabbee ci suuf. mën nga tas sax kenn du yëg man foofu laay waxee làmmiñ jalousie ngaaka ngaaka na jël jabaram mu lax ko xale yi boo leen xasee def star bu ñu ba ñu tàmm caméra bi munoo fexe ba génne leen ci caméra bi fat

nhân dạ go sân go nhân nhân dạ go sân go nhân dạ go sân go